وقد انتهى كل لحل واحد من أن أطالبه بكل أمل قطبي أبا العباس يا ابن محمد يا أكرم الأفراد والأعيان مثلي بمثلك نملة قد خاتب النفس بنداء بغير لسان فأجب بلطفك لا بعين التالي ذكرى هناك أعجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فلربما قد قلت في عقلي وفي روحي فكيف تجرهي بأواني هذا معي في وحشتي هذا معي في صحبتي هذا مع ما ميزتي أن لم يكن في ميزتي ما يستطيع والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورى بالخطب والكتمان وهما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيدان فامدد يدا منها إلي تفضلا وارض بها واشتر بلا حسنان ما بال مثلك بالإباء وقد غدا يغدو بأدنى شهودك ما بال بك بالإباء وقد غدا يثور بأدنى جودك الثقلان فالدهر دهرك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كلمتين فتعلقي بهداك أعظم حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فتقلبا فيما تشاء وتصرفا من عالم الأرواح والأرواح بل وزع الهذه الأجور تكرما بين الرجال وعم بالتجال هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاه صلاتك العظمى التي ما بعدها للجنس من قرب والحور من بين النافض في الحمى متفرجات فيك كالولدان وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين به وفي الأعلى وبوجهك الصافي بوصف باهر أم الكتاب بخط النوراني للفؤاد العالي يا سيدي يا سيدي يا سيدي جزاك ربك عن اللوم ثم الصلاة على النبي وآله من ربي في ربي الحنان ما قال أحمد للتجاني منشدا فإليك يا ابن محمد النادى أفنيت أسباب الحياة دراسة وبلوت كل وسائل العربة وقد انتهى كل لحل واحد من أن أطالبه بكل أمل قطبي أبا العباس يا ابن محمد يا أكرم الأفراد والأعيان مثلي بمثلك نملة قد خاطبت نفس ابن داود بغير لسان فأجب بلطفك لا بعين التأثر إن التأثر عادة سكران هناك أعجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فلربما قد قلت في عقلي وفي الروح فكيف تجره بأواني هذا معي في وحشتي هذا معي في صحبتي هذا معلو ما ميزتي أن لم يكن في ميزتي ما يستظل بوفر والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورى بالختم والكدمة وهما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيدان فامدد يدا منها إلي تفضلا وارض بها واشتم بلا ما بال مثلك بالإباء وخلق لا يذو بأدنى شهودك ما بال مثلك بالإباء وقد غدا يذو بأدنى جودك الثقلان فالدهر دهرك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كلمتين فتعلقي بهداك عجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فتقلبا فيما تشاء وتصرفا من عالم الأرواح والأبدان بل وزعا هذه الأجور تكرما بين الرجال وعم بالتيجان هذا رسول الله يوم دخولي متقلدا بالعقل والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا اليك كفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعدها للجنس من قرب والحور من بين النوافذ في الحمى متفرجات فيك كالولدان وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين بي وفي الإعلام وبوجه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 ñuy bëgg ànd ak yeen ci xasida bu nga xam ne bokk na ci xasida yi gën a rafet ci xasaidu euh, sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si ibn Seydi Abi Bakr alxalifa radiyallahu tabaraka wa taala anhuma mooy qasida ji moo ubbee taahat taahat bi nuuri jamalika al axlaamu yaa man huwa alxalaaqu wal allaamu mu mel ni soo doon tënk qasida ji dafa mel na jumla laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah alayhi laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah mooy dafa tàmbalee ci borom bi waaw tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw tagg ko musuma gis tagg boobu bu yéemee noonu nee na taahat gëlëm na al axlaamu xel yi bi nuuri jamalika ci leeru sa taar bi yow borom bi xam nga taar soo ko mënee def jàkk rek booba des na séegam yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la kenn mënul woon def jàkk rawatina leeru taaru borom bi ko bind tabaraka wa taala taaxat gëlëm na laxlaamu xel yi bi nuuri jamalika ci leeru ci ci leeru sa bi yaa man yow nga xam ne huwa moom kott alxalaaqu mooy bindaakoon moom rekk a bind alallaamu wala allaamu mooy xamaakoon bi moo xam lépp moom rekk xam wax nañ ne sayidna ibnu abbas daan na wax ne jumla ju ne ci alquran am na istithna am na exception ba mu des benn inna allaha bi kulli cheyin alim nee na wa aba siwaaka alxaqu min di xaqihim wa atat tuayidu mulkaka al ayaamu wa aba bañ na siwaaka kudut yow bañ na ko alxaqu dëgg min di xaqihim ci borom xaq seen képp koo xam ne am na xaq ji mu ji muy wooteel boppam mbaa mu koy wooteel kilifa gudut yow wala système bu dul sa bos wala lumu lumu tëdu yow dëgg bañ na ne du womatu ñeel kudut yow dëgg bañ na ne gisul ne ne ne am na keneen ko am xaq ku dul yow wa ata dikk tu ayidu di dëgëral di feddali al ayaamu bés yi mulka ka sa nguur bés bu xëy rek gën a wane ne yow rek ay buur tabaraka wa taala itam fala anta rabbun waxidun bi sifaatihi wa fiaalihi bi shahaadatin tuutaamu fala anta yow yàlla rabbun borom nga waaxidun bay benn bi sifaati yi ci melo mi kenn nga ci say melo wa fi aali yi ak jëfa mi kenn nga ci say jëf bi shahaadatin ci seede ci seede tuutaamu boobu des na ko taamu boobu des na ko tànn boobu des na ko jublu itaama shay ay qasadahu waxtaama rajul ay axada al ilm xadis ja ñëw na ne fi sadaqa fi sadaqati lgun fi sadaqati lganami yataamuha saaxibuha shaatan shaatan ay yaxtaaruha aral mawta xaw ma ko ko waxati tarafa tarafa aral mawta yataamu yataamu alkiraama wa yastahi aqilata ma lil faahishi l mutashaddidin nee na dafa mel ni dee ñu baax ñi rek lay tànn wax ne dee ñëpp lay jël waaw ndeysaan waaye ku baax su faatoo rek dafa mel ni àdduna bi tukki ndeysaan waaw nee na fala anta rabbun waxidun bi sifatihi wa fialihi bi shahadatin tu'tam wala anta xayru mukawwinin wa muqaddirin wa muhayminin tajri lahu lahkam wala anta yow sama borom xayru mukawwinin yaay ngën ji aji nekkal wa muqaddirin ak aji nattale wa muhayminin ak aji domine waaw tajri koog dana daw loo ñeel ko lahkam waaw yow yaay ki gën ci ni forme formé yow rek a formé yukawiru leyla ala nahaar wa yukawiru nahaar ala leyl takwin tamit bind forme eh, ak taqdir yow rekk yaa ko li nga formé nattale ko it rekk ci am domination yow rekk ci am autorité ma kullu cheyin fi lawalimi kulliha illa kama xatat bihi l aqlaam ma kullu cheyin dara amut dara nekkut déet lépp lëf fi lawalimi ci univers yi kulliha ñoom ñëpp illa kama xatat lu dul ma nga toogee taxawee nekkee comme na bindee na bindee bii ci moom làqu nga mu xalima loo gis rek na ko xalima dogal ga bindee woon la nee maanaam ci àdduna lu dëppoowul ak machiatullahi tabaraka wa taala amu fi ma kullu cheyin fi l awalim kulliha illa kama xattat bihi l aqlaam fa shams jant bi wal qamaru ak weer bi almuniiru ba yaay ji wa xayruhu ak lu dut moom wal ardu suuf si wal mirrixu ak planète euh, mars wal ajraamu ak astre yi corps céleste euh, bépp jëmm bu nekk ci euh, naka la tuddee espace bi yii yëpp tati li ayni muraqibin dafa kam iqtadaahu riaayatun wa nidaam te ti dafay dikk li ayni muraqibin jëm ñeel bëtu aji fuglu min nafaratin ci settantal min nafaratin ci xool min nafaratin ci gis fa kam iqtadaahu comme ni ko sàkkoo riaayatu càmm gi nga ko sàmm wa nidaam ak noose gi nga ko noose fa shamsu wal qamarul muniiru wa gayruhu wal ard wal mirrixu wal ajraamu yëpp tati li ayni muraqibi min nadratin fa kama iqtadaa riayatun wa nidaam yëpp ak yu dul ñoom ku nekk yaa ngaa daw fii falak ba nga xam ne fa la machiatullahi tabaraka fa la la machiatullahi tabaraka wa taala lakinna zaataka laa turaa illa kama tandaku qurba jalaaliha al a'la lakinna wante sa jëmm laa turaa deefu ko gis illa kama tandaku niki niki muy mokkee al montagne qurba jalaaliha ci jeget màggam sa jëmm daal malgré li taxawu yépp moo taxawal malgré yi nekk yépp moo ko nekkal malgré mbir mu nekk moo koy settantal na muy doxee teg ko na muy amee mu doxe noonu te dara du ci wuute malgré yooyu yépp bët mënulal tege ci yow lu dul mu tege ci yow an tariq al an tariq al wa dëkk waaw mooy jeex takk mukk rumba génn ci nekk gi rek waaw maanaa la góor ga wax ni bu sama borom tabaraka wa taala defoon tëjëlli ci mbindeef yi ñoom ñépp ñu xalaku falaw walaw yara al xalq anwaaran li di xujubin laxtaraqu kullahu loolu la Cheikh Alxaaji euh, Omar Ndaw wax waaw walaysa walaysat al aynu fi dunya bi mubsirati jalala datika ya batinu ya allah ah xanaa ki nga ko jagleel xasas taha rabbi bil muxtaari safwatina leylata najwak la suñu maam bu baax ba ca daaru salaam cheikh alhaaj omar na waxoon waaw ah moo tax ndax Moussa gis na boromam bu la gisul boromam coow lu rëy la jor ante sama borom kenn du ko gis ci bëtu kese kese fokk rek nga nga nga éduqué maanaam yii yëpp a ngi fi waaye yow mi ko fi teg kenn amul accès ci yow waxuma la yow waaye sa yonantu bi nga xam ne mooy sa xalifa mutlaq sax kenn amul ci moom kenn nag amul accès ci yonantu bi la Cheikh Alxaaji Malik radiallahu taala anhu wax ca eh, Taysir ba nuurun axaata bihi al anwaaru xaajibatan an il xaqiqati kull al xalq kenn amul accès ci rasulullahi kenn nag sallallahu alayhi wa sallam kenn amul accès ci xaqiqam alayhi salaatu wa salaam nee na man naasu mal akwaanu mal malau alladi fi ljawi mal aflaaku mal arqaamu illa gubaarun taara min quturi sama wa min alsamai min al umuri idaamu mën naa su déet nit ñi mal ak waanu déet mbindeef yi kaw ni yi mel mele yi déet mbooloo mi nga xam ne fil jaww mi ngi ci jaww ji mal aflaak déet aflaak yi muy jaaruwaayu biddiw yi ci asamaan mal arqaamu déet chiffre yi laa xubaaru lu dul muy pënd xaara bopp naaw na min quturi sama jógee ci goxu asamaan wa min asama te nekk na ci asamaan min al umuri ciy mbir ay e awaamu yu mag nit ñi kawnu yi mbooloo mi nga xam ne moo nekk ci jaww ji aflaak yeeg numéro yéeg yépp pënd lañ rek bu jógee kaw ba tax asamaan fii sax kaw lay lay firi ndax yi mu tudd ni al akwaan asamaan nañ ci mu ne te kaw nag la fa nekk ci mbir rëy na waaw kaw nag la fa nekk ci mbir rëy na xaw ma gan kaw lay junj waaw <laughs> xanaa xadra boobu tabaraka rabbuna wa taala nee na axkamta sayr alxalqi lilhadafi alladi ajazat bi darki tawiyihi alxukam axkamta yow sama borom xereñe nga sayral xalqi doxuk mbindéef yi lil hadafi lëri jëm ca biir ba nga xam ne ajazat lottu na bi darki yi ci jot taxañam alxukaamu attekati alxukaamu ñi am xereñu mën a atte lu ñuy am xereñ am xereñ lottu nañ ci jot euh, taxañ taxañu bu bi nga xam ne moom nga xereñee doxu mbindéef jëm ci te moo ne ku nekk ci mbindéef yi ma nga dox jëm ca bu boobu su dee sax réeree na mbóot ma taxaju ca bu ba la ilaha illallah mu ne waat fa xadat moo tax xëy fa xadat moo tax mujj ulubul aashiqina xolu way sopp yi mboole seen maanaam xol yëpp wala jamiiha mboole seen maanaam way sopp yëpp garaban taduqu ka annaha angham garadan ngir namm ngir namm la garadan ngir sopp la garad dana nekk bu waaye xolu way sopp la la la la la ñu ñamoon ñu indi leen fii ñu namm ko tax na amatuñu jàmm ñoom ñépp seen xol mujj na ngir nammul ak sob la leen azal mosal walla la nga leen mosal yow borom azal te mu mel ni eh, wuññi nga lu tax ñu mën a yëg ne war nañ caa mën a àgg donte dar ko taw yi ba eh, réer na xokkaam yi ñoom seen xol mujj na te dukk di eh, rëkk ka annaha mel ni ñoom an xaamu ay mélodie lañu fa li ilmu والقانون والعقل الذكي والرأي والتدبير والإعلام كل يقوم بدوره في ظله وفق المشيئة ما أتيح قيامه هذا بأمر منك دون مشارك أبدا وأمر منك فيه سلام فالعلم خم سيانس wal xaanoonu ak loi bu mu bumu wal aqlu zëkki ak xol xel mu ñaw wal ra'yu ak jis gis xalaat wal tëdbiiru ak settantal wal ilaamu ak xamle mu dellu ci média yile moo xam bu kaw la moo xam bu suuf la kullun bu mu ci ñoom yaqumu mi ngi taxaw bi dawrihi ci rôle bi nga xam ni moom lañ ko joué waaye fi rillihi ci kappaaru borom bi tabaraka wa taala wafqal machiati dëppoog coobare borom bi tabaraka wa ñoom ñëpp ñu ngi taxaw li ñu war a taxaw ma utiha féeg dogaleef na qiyaamu taxaw féeg ñu ngi leen di may ma utiha féeg ma utiha ñu ngi leen di permettre qiyaamu taxawee li ñu war a taxawee ñu ngi koy taxaw xam ci lim war def xaanoon ci lim war a def aqli zët yi mi ngi ci lim war a def rë yi mi ci lim war a def tadbir mi ngi ci lim war a def ilaam mi ci lim war a def te kët ajasat bi darki tawihi alxukam hada bi amri minka lii nag mi ngi amee ci pouvoir ak ndigal ak mbir mu dukkee ci yow doona musharike ci lu dul aji bokkaale abadan ba faw wa amrun minka te mbir mu tukkee ci yow fii ci loolu rekk la nekk salaamu jàmm lu waay di nekk na fekk muy mbir moo xam ne yaa ca joxe ndigal ndax lu jógee ci yow jàmm rekk a ca nekk ku ko topp am jàmm hada bi amrin minka duna musharikin abadan wa amrun minka fiihi سلام لأن هذا وأهل الأرض تطلب رزقها ماء ونبتا حوله أنعام هذا لي وأهل الأرض برمانجي وأهل الأرض تنيون سوف تطلب نيانغاي ساكو رزقها wërsëgi suuf maa am ci ndox wa nabtan ak ci gàncax xawlahu ko nekk na ca wetam ana amu juri kër wa xasaa'isul ghaazati wa tooqaati fi salbin wa ijaabin lahu ilham wa xas wa xasaa'isul ghaazati jeg jege gaz yi wa tooqaati ak énergie kattan yi fii salbin moo xam ci négation la wa ijaabin wala ci affirmation ilhamun ak yenka wala lahu kooku ñeel na ko jógee ci borom bi tabaraka wa taala li ñu li ñuy liggéey gaz yi li ñuy liggéey moo xam ci li ngeen di tuddee eh, eh, négation la walla li ngeen di tuddee affirmation lépp loi la yu nga xam ne sama borom tabaraka wa taala moo leen ko inspiré ah nga dugal plus fii dugal moins fii nangal fii nangal fii wa min kulli shay'in xalaqna zawjayn laallakum tadakkarun mu ne mal ardu illa kutlatun fi dimniha shay'un min al ayati fihi wi amu mal ardu déet suuf illa kutlatun lu dul muy ab morceau benn eh, benn pièce la rek benn tànk la rek benn partie d'un tout waaw fii rimniha aji nekk la ci biiram shay'un lëf min al ci ci kéemtaan yi nekk na ca loolu wi amoon ak harmonie ak dëppoo suuf si nga xam ne ñun ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi ci foog ne mooy na bi nee na benn benn euh, côtelette la benn morceau la rek benn parti la eh, benn dànk su ndaw la rek dégg soo xam ne yàlla nga ca tëxëñ ay kéemtaanan waaye nag avec une harmonie ndax yi fi nekk yépp ñoo fi war a nekk ndax suuf dox bu fi dara ci yi fi nekk manqué rek suuf dootu dox moo tax fii mu ne waaye nag bul waru yi fi yamut foofu wa hunaaka miliyaaraatun min alkutulaati la tarda bi gayri ridaaka xiina tusaamu wa hunaaka nekk na fa nekk na foofee milliarun wa hunaaka milliarun ay milliard min alkutulaati ci ay morso yoo xam ne la tarda du gërëm xiina tusaamu jamono saa yu ñu koy jéemee conduire saa yu ñu ko jéemee togg saa yu ñu ko jéemee sant du gërëm mukk bi xëyri ridaaka lu dul ngërëm sa maanaa adduna bi ji fi nekk yëpp ci ay pièces ci ay euh, planet ci ay réalité bu ci nekk rek bu ko bëgg a jëfandikoo lu dul ca règle ya ko sama borom teg du dox ñoom ñëpp ñëpp wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi walakin laa tafqahuuna tasbixahum walakin laa tafqahuuna tasbixahum tusabbixu lahu samaawaatu sab'u wal ardu wa man fiihin naam walillahi yasjudu man fi samaawaati wal ardi tawan wa karhan wa zilaaluhum bilguduwi wal asaal mu ne wa hunaaka milyaarun min alkatalaati laa turda laa tarda bi xeyri ridaak xiina tusaamu jamono yuñ koy togg jëf moo xam ñu koy kon jéem a conduire fii awmiha ci yaxam wa xadiidiha ak ci weñam wa ramaadiha ak ci doomam fi ruuxiha ci ruuxam wa jamiicuha te léppam aqsaamu ay xaaj la loolu nag mën naa dellu ci bi na katalaat mën naa dellu ci suuf ndax yi ñu tudd yëpp mi ngi ci suuf donte mën nañoo am fu ñu xamut waaw lii yax ci suuf li ciy wëñ gu ñuul muy feex li ciy dóom li ci màdd ak li ci dul màdd yépp ñu ngi bóof ci suufu machiatul xaqi tabaraka wa taala du jëf mukk lu dul li dëppoog li neex borom bi tabaraka wa taala yooyu nag li muy rëy rëy mu ngi xamal ne du dara du dara boo ko comparé xadara yàlla tabaraka wa mu ne innal xayaata dund gi nga xam ne moo ëmb yi yëpp bi kulliha ànd ak léppam hiya moom ci boppam la xawatu gendeeku la rek benn jaxse de seconde la rek ndem mat na ko yentaabuhaa di huutu hante ci biiram al iqdaamu euh, ak ak ak jëm kanam wal ixjaamu ak dellu gannaaw maanaam courage ak odas ju lay ju loo pour nga attaqué ak ragal ak réticence su lay poussé pour nga arrière mu ne dund yépp genn gendeeku la goo xam ne ñaari yee ko seq dem ca kanam dellu ginnaaw dem ca kanam dellu ginnaaw dem ca kanam gi ginnaaw xam nga loolu bu amul ku la wax kañ ngay dem ci kanam ak noo fay ak ku la may fit ba nga dem ci kanam kii yàlla amul ku lay wax kañ ngay dellu ginnaaw ak noo cay deme ak li nga waruta am fit ca moom ba tax nga dellu ca gannaaw muy ay tereem kii yam soo amul ku mel noonu àdduna tukki àdduna tukki àdduna tukki mu ne wa amaama ayaati tabiati qad gada tataxab tataxattabu lkuttaabu tataxabatu lkuttaabu wa ruwaam mu ne te ci kanam eh, signe ak kéemtaani nature bi xad xadaa la xëy te te xabbatu di dëjjëtu alkutaabu e, ñi nga xam ne ñooy bindkat yi wër ruwaam ñi nga xam ne seen mbir mooy bind ak ñi nga xam ne seen mbir mooy def ay recherche chercheurs yi ñoom ñëpp ci kanam ayatu tabia lu ñu ñaw ñaw suñ ca taxawee rek gëlëm doo leen gis mukk lu dul ñuy def taxabut waaw ah, waaw waaw waaw nit ki koo xam ne yataxabatu yataxabatuhu cheytaanu min al mas waaw waaw mhm. laa laa yaquumuun illa kama yaquumu alladi yataxabatuhu cheytaanu min al mas waaw nee na boo xoolee penseurs yi ak chercheurs yi philosophie ak scientifique yi ci kanam ayatu tabia maa fihim maa fihimu linnaasi illa xaa'irun wa muxayyarun tatgaa bihi l afhamu maa fihim nekkul ci ñoom linnaasi ñeel nit ñi illa xaa'irun lu dul koo xam ne aji gëlëm la tatgaa kook dana tooñ bi ci moom al afhamu ay dégg yoo xam ne mënuñoo peg liñ gis wala defee ñaara ci am ci nit ñi ku gëlëm wa mu xayyarun ak ku ñu gëlëmal tataxaa dana beew dina opprimé bi ñu ci ma balaa faa mu dégg law la nubuwatu mooy mooy jawaab ca law la nubuwatu min su dul woon ak nubuwatu gi jógee ci yow wal waxyu alladi salakat bi nahji sabilihi al ak waxyu gi nga xam ni ñii nam ma baax ci nit ñi yépp sóobu nañ ko bu dul woon a nubbu konoon ayatu tabia ayatu tabia ajaibul kawn yi nga xam ni gëlëmal na kuy borom xel ak lu xel ma rëy kuy borom njàng ak lu njàng ma rëy maanaam su dul woon ak nubbu ñaar rekk ñooy am ci àdduna ci kanam xaqaayiq yi ci kanam aayaat yi benn koo xam ne il se dit penseur wala scientifique wala philosophe wala chercheur koo xam ne dem na ba xamatul fu muy taxaw mu gëlëm ak kuy déglu kooka kuñ gëlëmal maanaa kenn rekk moo ñu mën a jox dëgg-dëgg gis-gis bi euh, bi bi baax bi wér ci kanam ayatu tabia mooy ki ko bind waaw alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir téléphone bi nga yore di seetaan wala computer bi nga yore di seetaan su amee problème da ngay dellu ca ka ko defer yan mbóot la ko deferee ak yan la wax ne bu amee nangam ak nangam nangam ma koy def technicien boo mën a demit dafay dellu jë ka defar yëf ya yan yëf la jëfandikoo ba defar ko boo ko xumala sax bu yàqu waaye boo ko bëgg jëriñoo sax daa seet notice ba nga xam ne moom lañ la jaayaale wala moom lañ la joxaale appareil bi pour mën ko jëfandikoo soo seetee nu la neex nga bëgg a jëfandikoo sa téléphone mën naa am du sotti waaye boo toppee rek tabaarakallahu ka ko defar na mu waxee nga defee ni mën naa am di ko mën a jëfandikoo ah naka noonu it yàlla moo bind nit moo bind àdduna moo bind yi fi nekk yëpp kon nag eh, nubuwatu bu jógee ci moom ak wax yu bu jógee ci moom rek lañ mën a topp pour am accès ci yëf yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw na bi am ci gis-gis boo xam ne bu wóor la bu leer la waaw nee na wa inna alxayaata bi kulliha hiya laxawatu yantaabuha aliqdaamu walixjaamu wa amaama ayaati altabiati qad gada tataxabatu alkuttaabu walruwaamu ma fihimu linnaasi illa xaa'irun wa muxayyarun tatgaa bihi alafhaamu aka mën a waykaar lawla nubuwatu radiyallahu taala anhu lawla nubuwatu minka wal waxyu alladi salakat bi nahji sabilihi l aqwaam lawla nubuwatu su dul woon ak yonantu gi wal waxyu ak waxyu gi nga xam ne minka tukkee na ci yow alladi waxyu gi nga xam ne salakat sóobu na bi nahji sabilihi ci digg yoonam al aqwaamu nit ñu baax ña fa ataa biha muusa bi alwaaxin samad wa ghadaa bi israila fiihi nizaamu wa rawaa bihi isa almasihu wa xawlahu zumarun bi awsaati bi awsaati rijaali kiraamu wa hadaa bihi ahla albisaati muhammadun sallallahu alayhi wa sallam li tazuula an gaayaatihim awhaamu mu ne fa ataa dikkee bihaa ci nubuwatu googu Muusa yonentu yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam bi alwaaxin ci ay xalawa wa axada al alwaaxa wa fi nusxatiha hudan wa raxmatun lilladina hum li rabbihim yarhabuuna bi alwaaxin ci ay alwa samat yooyu kawe nañu wa xadaatam xëy wa xadaatam mujj wax yu googu bi israila ci banoo israil fii da ca nekk lisam indispensabilité maanaam ak takkoo goo xam ne mënta ñàkk war a nekk ak ñoom mu mu gindi leen wala duñ gindee ko ba faw ah, waaw yàlla mu ne moo wàccee tawraat fiyaa hudan wa yaxkumu biha annabiyuuna alladina aslamu lilladina haadu warrabbaaniyuuna walaxbaaru bima stuxfiduu min kitaabillahi wa kaanuu alayhi shuhadaa fa ataa biha muusa bi alwaaxin samad wa gadat bi israa'iila fiihi lizaamu wa rawaa bihi ciisa almasiixu wa xawlahu zumarun bi awsaati rijaali kiraam wa rawaa te solo bii ci waxyu ga isa yonent yàlla isa almasihu alayhi salaatu wassalaam wa xawlahu te nekkoon ci wàllam zumarun mbooloo bi aw saati rijaali ci gën ji góori jamonoom kiraamun mbooloo mooy way tedd mu ne waxyu googu ak nubuwatu googu moom nga joxoon Isa mu indi ko ànd ak mbooloo mu tedd moomu di alxawaariyuun ak ña ko gëm alayhi salaatu wassalaam falamma axassa Isa minhum alkufr qaala man ansaariya ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaarullah yal nañu yàlla boole ci ansaarullah mu ne wahadaata jubalee bihi ci waxyu googu ahlal bisaati ñooñ dendi suuf bi kan muhammadun sallallahu alayhi wa sallam li tazula ngir na deñ al awhaamu illusion yi an gaayaatihi walis buyom walis mission walis fin yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñëw dajale li taqali ci yonentu yi yépp te ci moom la jóge woon it dem ci ñoom mu gindee ci ñooñu àdduna ba buy bi nga xam ne moo tax yàlla bind leen ngir mooy ngi ñu jaamu ko lépp lu ca lënt te seytaane bakkan indi ko ca mu dindi ko wa ma xalaqtul jinna wal insa li yabudun yàlla tabaraka wa taala benn raaya moo tax mu bind ñu mooy ñu jox ko suñ bopp leeral na ci suratu zaariyaat niñ ko tuddee léegi ne buur yi bu ñu amee ay jaam ñett lañ leen di defee benn ñu am ca jaam ya ñu leen di liggéeyal ngir seen war wërsëg yokk buur nee na maa uridu minhum min dàq na boobu am ci jaam yi ñoo xam ne ñoo yore seen waañ ñooy toppatoo seen lekk buur ne man wa maa uridu an yut'imuuni ndax moom du moom du lekk soxlawuma ko wa huwa yut'imu wa laa yut'amu <clears throat> bañ ne Isaa ak yaayam yàlla lañ mu ne kaana yaakulaani taama kon duñ yàlla mu des ban ñoo xam ne buur bi daf leen di indi ci kootam ñu nekk ci xadaraam di ko déglu muy waxtaan ak ñoom lu mu bëgg ñu ne ca yàlla ne boobu moom rekk laa soxla yàlla sax amul soxla waaye boobu laa bëgg ci yéen waaye bu dee wërsëg ak lekk soxlawu ma ko te maa leen koy jox inna allaha huwa razaq dul quwati matin wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa li yacbudun maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutimoon mu jublu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niñ ko waxee laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ba mu rek la yegsi ci muhammadun rasulullah mu ne fas al laajal ka ma tontu la man Cheikh Tidiane si ne bi anna nuural Mustapha naka leeru yonent yàlla Muhammad kii kuñ tànn sallallahu alayhi wa sallam bihi l arwaax wal ajsam yi laab yépp ci moom lañ laabe jëmm yi laab yépp ci moom lañ laabee sallallahu alayhi wa sallam fa xadaaratun ma baadaha min madhabin wa kifayatun fi nafsiha wa qiwaam li yonent bi indi fa xadaaratun ak xay la civilisation la boo xam ne ma baadaha de di nekk ci gannaawam min madhabin dem waay gu wér wa kifayatun ak doy la fi nafsiha ci boppam wa qiwaamun ak taxawu duut loo xam ne dafa soxla dara lu ko doyal duut loo xam ne dafa soxla dara lu ko taxaw moom dafa doy ci boppam moom dafa taxaw ci boppam te lépp luy doyati wala muy taxawati ci xadaara boobu di xadaaratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ca lay taxawee ca lay doyee wa hidayatun ammat bi geyri tafalsufin wa amaanatun addaa bi al islaamu mu ne wa hidaayatul ak njubla la ammat goo xam ne mat ammat goo xam ne matale na bi gayri tafalsufin ci lu dut philosophie philosophizing maanaam ak njub goo xam ne amul philosophe amul lenn falsafa dégg di xalaat naan nii la war a demee ak nangam ak nangam déedéet ndax lu jóge ci yàlla la lu jóge ci yàlla daf lay daggal téeméeri junne at yoo waroon a toog di philosophie mu ne wa hidaayat ak njub la amat goo xam ne mëtale na bi ci lu dut lu dut philosophie wa amaanatun la addaa la addaa goo xam ne joxe na addaa goo xam ne jooxe na bihaa ci moom lislaam wal islaam lislaam bu jox sa bopp yàlla li yonent bi indi ak njub la goo xam ne nekkul ne nit ki dafay toog di xalaat di philosophe ba àgg ca déedéet njub gu mëtale la soxlawut loolu ndax ki bind moo ko moo ko joxe kóolu tëgal la boo xam ne li la ca yóbbu mooy jox gi nga jox sa bopp ki bind te looloy lislaam laa ra'ya ba'da xaqiqatin fi tayyiha sirru lxayaati wa fiihi ba'du maraamu laa ra'ya déet settantal laa ra'ya déet ak xalaat euh, opinion amut ba'da xaqiqatin gannaaw réalité goo xam ne fii tayyiha aji nekk la ci aji nekk la ci taxañam sirrul xayaati mbóotam dund gi wa fiihi aji nekk la ci mbóotu dund gi baxadu gannaaw loolu maraamu sàkkuteef wala wa fiihi aji nekk la ci taxañamu baxadu gannaaw ga maraamu lépp lu nit di sàkku lépp lu jaam di sàkku lépp bépp sàkkuteef mi ngi ci tayyu xaqiqatu boobu réalité goo xam ne dëgg joo xam ne la ngay wut yépp mi nga ca dëgg joo xam ne mbootam dund yépp ma nga ca taxañam nga ana lu opinion di wutati foofu fa maada baada alxaq fa maada baada alxaq illa dalal sëriñ cheikh ne falaka alxiyaaru fa muminun fi xisnihi aw munkirun talhu bihi l asnaamu lii la yonent bi indi sallallahu alayhi wa sallam li nga soxla yépp a ngi ci yaay seet nag falaka alxiyaaru ñeel na la choix fa muminun fi xisni benn nga gëm nekk ci protection aw munkirun wala nga weddi nekk aji weddi joo xam ne talhu dana fooye bii ci moom las naamu xërëmi xalaat yi las naamu xërëmi idéologie yi las naamu xërëmi système yi las naamu xërëmu illusion yi las naamu xërëmu philosophie las naa mu xaramu lépp loo xam ne du njubal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak a mën a woy kaar qaddasa allahu sirrahu mooy nee na fa wanaaka nekk na foofee muy ca xadaraab yonent ba ca njubal yonent ba ca xaqiqa boobu nga xam ne moom la yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi fa wanaaka foofee atyabu ma yakunu xalaaluhu aqlan atyabu ma yakunu gën jaatee ji la dana nekk xalaaluhu xalaalam aqlan ci xel wa axbasu ma yakunu gën caa loo xam dana nekk xaraamu di xaraam aqlan ci xel maanaam lépp loo xam ne lu système boobu nga xam ne mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne lu dagal la rek boo xoolee ci xel mooy li gën a téy ci war a nekk lépp lu ne lu xaraam la boo xoolee ci xel mooy li gën a bon ci li war a nekk fa hunaka atyabu ma yakunu xalaaluhu aqlan wa axbatu ma yakunu xaraam aqlan walxaadithaatu wa ma biha min xikmatin wa tanaawubi al acwaami wa tanaawubu al acwaami fa al acwaamu fa tasarrufaatu min ilahin qaadirin id laa yafi bilxaadisaati kalaamu kon nag fajal min al ashyaai xawaka xibratan bi tafakkurin yadnu bihi l ilmaam walxaadisaatu xew-xew yi wama bihaa ak la dana nekk ca min xikmatin ci xam-xamu njëriñ wa tanaawubul acwaami ak wuutuwante at yi fal acwaamu topp at yi fa tasarrufaatun ak soppandiku la min ilaahin tukkee ci buur qaadirin bay aji mën boppam bay aji mën dara ci lim fi teg xaadirin bay aji fees dell ak kàttan dara tawut ko id ngir laa yëf yi du mat du matal kalaamun wax bil xaadisaat yi xew-xew yi lii xew ak la ca biiram moo xam ci espace la walla ci temps wala ci temps yépp soppandiku borom bi nga xam ne moom rekk ab kàttan te moom rekk a mën boo xamee ne nag moom rek am kàttan moom rek a mën nga delloo ko ci soppandikoom waaye ku ko nar a wax li xew yépp xel mënu koo jàpp sa kàllaamiñ di ko mën a wax kon nag nooy def mu ne fajal min al defal ci yëf yi xarraka sa cër xibratan muy expérience fajal xarraka min al ashyaa'i xibratan bi tafakkurin ci xalaat yadunu goog dana jege bii ci moom al ilmaamu ak xam al ilmaamu activité intellectuelle boo xam ne dana jur érudition waaw dana ilmaamu ak mët ci xam savoir approfondi dans un domaine de Euh, dans, dans tous les domaines on peut dire waaw boo bëggee daal xam gu mët sëkk nee na fexee lu lu romb rek euh, nga xalaat ca ba mu connecté la ak source bi waaw lu xew rek gis ca yàlla musiba la yiw la rëy na tuuti na guddi la bëccëg la lumoo lumu rek na nga gis loxo yàlla ba tabaraka wa taala waaw fajal defal xarraka sa cër xibratan ci nëtt xibratan ci xam xibratan ci expérience bi tafakkurin ci xalaat gooy xalaat goo xam ne yaddunoo dana jege bii ci moo al ilmaamu peeguk xam al ilmaamu ak matuk xam al waaw min al ashiyaa mu ne bul bul li ma la wax nii nag bu mu bu bu bu mu tax maanaam eh, mu ngi tontu si moom Serigne Cheikh radiallahu anhu eh, eh, mi ngi anticiper question bi nga xam ne kii koy déglu bëgg na ko ko laaj ci maanaa li mu wax ni penseur yéeg philosophe yéeg nangam nangam yépp seen jëf amul benn njëriñ boo koy set gu ñu mën a sukkandiku moom kot amul benn njëriñ mu mel ni ko wax ne ko mais am na ñu fi jaaroon des grands penseurs des des philosophes mu tudd leen xar li nga tudd ci sa xel mu tuddal la ko mu ne maa muntaha suqaraata maa muntaha suqaraata wal malai l ula ana luy daytalu suqaraat mooy sokaraat ana ana luy daytalam ana fu mujj wal malail ula ak mbooloo bi nga xam ne tabiuhu ñoo ko toppoon ay la gurbatu lu dul muy ak tumuranke gu métti fa ximaamu topp dee wala maa muntaha suquraatu déet mujjug sukar sokrat wal malail ula ak mbooloo mi nga xam ne tabiuhu euh, toppoon nañ ko illa xurbatum seen mujj nekkut lu dul tumuranke xalaat xalaat xalaat ba futi fa ximaamu far dee rek te ba léegi amul lu ñu àdduna bi solution donte defe nañ def nañ effort yu extraordinaire mu ne wakkaraa nekk noonu aflaatuunu platon platon fii eh, platon fii aaraihi ci ay xalaatam wakkaraa wakadaaka aflaatuunu wakadaaka aflaatuunu fii aaraihi man naqdu xararahu wala al ibraamu wakadaaka nekk noonu aflaatuunu aflaatuunu wi yi ci ay xalaatam yu extraordinaire ma du déet examiner de manière critique xararahu mu koy goreel wala ibraamu du caageen euh, confirmation wala ànd gu mu ànd maanaam afraton euh, euh, critiquer une pensée wala benn philosophie wala ànd ca taxut mu gore terewut mu mujj fa Sokaraat ak ña àndoon ak moom mujj xurbatun fa ximaamu lu tax parce que wax yu dikk lut leen moo tax sa xam-xam lu mu bëri bëri na nga def wax yu muy sa cislaay moo tax sëriñ Cheikh ne man lam ya'udda muhabbadan sallallahu alayhi wa sallam fi ilmihi falilmu fiihi xasaaratun wa malaamu man lam yaudda ku limut muhammadan yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam fii ilmihi ci xamam fal ilmu fal ilmu xam-xamam lu mu bëri bëri xasa fiihi aji nekk la ca xasaaratun perte wa malaamun ak yaraange képp ku yonentu sallallahu alayhi wasallam du sa jàngalekat képp ku sa yonantu dul prophète ku yonantu sallallahu alayhi wasallam du képp ko xam ne du yonantu mooy sa professeur nee na sa xam-xam demal université bu la neex demal ci laboratoire yu la neex demal fu la neex ci centre de recherche yi gannaaw du yonantu mooy sa kilifa nee na sa xam-xam perte la laa jural yaraange moo la laa man lam yaud ku kontewul muhammad sallallahu alayhi wa sallam fii ilmi yi ci xamam fal ilmu xam-xam fii ci moo fii fal ilmu xam-xam ba mu yore fii nekk na ca xasaaratun wa maliha sallallahu alayhi llah yal na yàlla julli ci moom kulla daqiqatin bépp minute bu romb rek na salaatu wasalaamu nekk ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wa ala al ula ak ci ña nga xam ne sallu julli nañ alayhi ci moom waxaamoo tañ taxaw mu def jóge ci rëy ba nag jëm ci liltifaat ku mën a wéy la sidna sëriñ cheikh radiallahu anhu waaye ku ku ku ku ku ku ndar képp lugal arabia la bi asalibiha wa ma fiha min al badiiyaati waaw waaw yal na ko yàlla gërëm nee na yaa ahkama thaqalayni ay yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yaa gën a xereñ ci ñaari ndigg bopp ñaari ndijji bopp yi muy nit ak jinne yaa ahkamal faqalayn yow mi nga xam ne yaa gën a sage yaa gën a xarala fii irshaadihi ci ni muy jubalee yaa man yow mi nga xam ne imaamu yaay njiit li kullil muhtadina ñaan ñépp ñu jub yow mi nga xam ne képp ku jub rek c'est que yaay ilimaanam moo tax mu jub yaa axkama thaqalayni fi irshaadihi yaa man li kulli almuhtadiina imaamu yaa ahmadu almabuuthu bilxaqi alladi xadaa alriqaabu ilayhi wal aqdaamu haadaa bi ruuxin minka laa bi dicaayatin inna addicaayata bidcatun wa dalaamu maa misluka alumaraa anta amiiruhum fi lxukmi aw fi shahratin ak haramu aka mën a woy kaar radiallahu taala anhu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam yaa ahkamal xaqalayni yow mi gën a xarala ci ñaari ndijji bopp yi fii ishaadihi ci jubalam yaa man yow mi nga xam ne yaay ki nga xam ne imaamun imaam nga li kullil muhtadina ñeel ñépp ñi jub yaa ahmadu ee eh, yow yonentu yàlla ahmadu almabuusu yow miñ yebal bil xaq ci dëgg alladi dëgg gi nga xam ne xadaa toroxlu na ar riqaabu loosi ilahi jëm ci moom wal aqdaamu ak ndëgu yi yow mi nga xam ne ñi nga xam ne kawe nañu ba mel ni baat suufi nañu ba mel ni tànk ñépp toroxlu nañ ñeel dëgg gi nga xam ne moom nga indi te haada li nga indi muy dëgg haada toroxlu gii mi ngi amee bi ruuxin ci dëgg min ko ku jógee ci yow laa bi diaayatin waaye du ak wooteeg propagande ndax inna diaayata propagande bidaatun bidaa la wa galaamu lëndëm la xamul fu mu jëm xamul fu mu fu mu fu mu fu mu taxaw yow laa wax ne maa misluka dédd mel ni yow maa misluka déddi la niru al umaraa buur yi ant yow kot yow kay amiruhum yaay seen buur maa misluka déddi mel ni yow al umaraa buur yi fil xukmi ci attit aw fi shuhrati déddi mel ni yow fi shuhrati ci yiw al ahraamu euh, ci ci ci siw al ahraamu pyramide yi seetal loolu maa misluka déddi la niru al umaraa buur yi fi xukmi buur lu mu rëy rëy lu mu am am euh, pouvoir jegewul yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ndax moo ja boole pouvoiru adduna ak pouvoiru asamaan waaye tamit lu mbir ak lu nit ak lu mbindeef siiw siiw jegewut la bu dee sax pyramide yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci mbindeef yi ndax foo foo xoolee ñu ne pyramide yi ñi di yéemu ca nañ mel ak la leen fi teg mu ne maa misluka déddi la niru al umaraaw buur yi fil xukmi ci atte fil xukmi ci boobaa anta yow amiroom yaay seen buur sallallahu alayhi wa sallam wa ma misluka déddi la niru fi shuhrati ci siiw al araamu eh, eh, eh, pyramide yi ndax yaa tax ñu siiw alayka salaatu wasalaam buur yi niruwuñ la lu tax buur yi niruwuñ te yow Cheikh Tidiane si mu ne fa min asamaadi fa min asamaadi banaw aziza xayaatihim wa min asamaai banayta yaa xam-xamu fa min asamaadi ci ciment fa min asamaadi ci fumier fa min asamaadi ci engrais fa mina samaade ci eh, amendement bu dee système la banaw ci lañ taxawee aziz ci lañ tabaxee aziza xayaatihim aji tedd ji seen dund ñoom seen tedd nga ak seen nguur ciment lañ ko tabaxee wa banayta yow nga tabaxee sa nguur nga tabaxee sa atte nga tabaxee sa dawla nga tabaxee sa xukma sa sa xik sa xukm tukkee ci leeru yàlla yaa xam-xamu yow sang bi nga xam ne yaa booleem mbooleem xeeti sang cang yaa yaatu yiw alxamxaam alsayid aljaamiu lilsiyaadati alwaasiu alxayr loolu ay xam-xam mu mel ni yëf yi dafa dafa dafa leerul mu gën a leeral mu ne qasrun yuhaddadu bilxaraabi li kullihim abadan wa qasrun bil amaami bil amaani eh, wa qasrun abadan wa qasrun bil amaani mu ne qasrun ñoom seen pale ya pale la yuhaddadu des na ko tëkkoo des na ko tiitalee des na ko ndégee ndégee nga ne li kullihim ñenn képp ci buur yeneen yi xasrun pale boo xam ne yu haddu des na ko tëkkoo des na ko négee bil xaraab yi ci ràpp seen pale yépp ci ràpp la jëm abadan ba faw wala nga ne li kullihim aji nekk la ñeel képp kenn ci ñoom xasrun pale yu haddadu boobu def na ko tiitalee bil xaraab yi ci ràpp wala ka ñeel na la yow xasrun pale boo xam ne yu xaamu des koo taxawal bil amaani ci kóolute abadan ba faw yow sa pale moom du ràpp mukk waaw ñoom seeni pale ciment lañ ko tabaxee yow sa pale nga tabaxee ko leer moo tax seen pale di ràpp yow sa pale du mos ràpp seen euh, système ak la ca nekk yépp ci teraanga kibrun yukannahu bilqadaa'ifi indahu wa hudan hudaahu ibadatun wa siyam aka mën a way mu ne kibrun ak rëy la yukannafu goo xam ne dees na ko protégé bil qadaa'ifi ci ay misil wala nga ne indahum nekk na fa ñoom kibrun ak rëy goo xam ne yukannafu des koy protégé bil qadaa'ifi ci ay misil li nga gis yëpp borom kattani àdduna yi buur yi amee ko ak rëy la boo xam ne missile missile rekk moo ko mën protéger waaw le xew ci àdduna bi li xew ci àdduna bi depuis àdduna di àdduna ñi àndul ak yàlla yépp kattan la ñuy protéger seen nguur waaye yow yonantu sallallahu alayhi wasallam nag li nga indi mu ne wa hudan yow de li nga yore njub la goo xam ne hudaawu njubam mooy ibaadatu jaamu yàlla wa siyaamun ak koor koo xam ne nag fu mu jaaxle ne yàlla maa ngi bokkul ak koo xam ne fu mu jaaxle seeti yoo xam ne waxuma la yooyu mbindeef la waaye mbindeef a ko defar wa diinu baynaka bil biqaa'i wa baynahu wal qabru wal malakaani lal azlaamu sallallahu alayhi wa sallam wa diinu diine fil biqaa'i ci pakki suuf wal qabru ak bu ñu demee qabru wal malakaani ak wal qabru ak qabru wal malakaani ak malaaka yi baynaka moo nekk ci sa diggante wa baynahum ak seen diggante seetal loolu maanaam yow ci kaw suuf ah gën na sax fasax gën na sax éloquent noonu maanaam wa diinu baynaka fi lbiqaaci wa baynahum wal qabri wal malakaani lal azlaamu waaw ak mën a woy kaar mu ne wa diinu diine baynaka moo nekk sa digganteeg yow wa baynahum ak diggante yéeféeri ak wa baynahum ak diggante buur yi yéeféeri fil biqaa yi ci kaw suuf yow sa digganteeg ñoom ci kaw suuf mooy nga woo ci diine ñu ba fa gi ñëw nangul la wa wal xab wal malakaani ñaari malaaka yi nag bay na ñoo nekk sa diggante wa baynahum ak seen diggante ñoom fil xabri ci bàmmeel amul kenn kuy dee lu dul ne buñ koy laaj ci bàmmeelam yonentoom nee na maa ngi toog sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko maa ilmuka bi hada rajuli loo xam ci waajile mu ne bu yowmal bu ñu dee tamit bañ suul seen bàmmeel li nekk sa digganteeg ñoom ca xabru ba mooy ñaari malaaka yiy laaj ñu seet ndax tontu tontu woon nañ la ci àdduna ndax ñu mën a tontu wala tontu wuñu woon ci àdduna lii de moo nekk ci sa digganteeg ñoom lal azlaamu waaye du flèche yi nga xam ne ñoom la jaahiliyatu daan def ay banti wantale ñoom lañ daan def ay kiiw di xool bii ne waaw bii ne déedéet ba la neexee nga fi dee ko xërëm rek innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal islaamu rijsum min amali sheytaani fajtani boobu li nekk sa diggante ak yow ak ñoom mooy nga woleen ci dëgg ñu wuyu si la fii ak bu yowmal qiyaamatee nga toog ñu leen di laaj ci sa kanam ngay dégg waaye nekkul sa digganteeg ñoom ñu war laa woo ci xërëm nga leen di wuyu ci seetal seetal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayidina wa xabibina muhammadin bu rafet lool yal nañu yàlla fayal eh, cheikh tijani eh, si al maktum radiallahu tabaraka wa taala anhu tabaraka allah gudd na ah, fokk mu am ndax eh, macha allah suma macha allah eh, weeru gàmmu gee ko laaj waaw coono yeeg soj yeeg yépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëpp na ko yal nañu ko yàlla fayal hada wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf yéen ñi ci live bi yëpp macha allah